Assalamualaikum waa seen mobile TV tey ñu ñëw tey ci nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment avoir une belle clavier avec des LED tey vidéo bi tey la concerne mooy li nga xamante ne clavier clavier bi nga xamante ne dafay tàkk di def ay effet facilement tey loolu leen bëgg ñëw tey wan leen ko tey nan ngeen mën a def tey ba am ko facilement sans plus tarder je vous invite à abonner et activer la cloche de notification bu fekkee bëgg ngeen loolu c'est facile ñëw leen ci li nga xamante ne mooy Google Play Store wala seen Apple Store boo leen ñëwee mën ngeen bind li nga xamante ne clavier LED boo leen bindee clavier LED premier résultat ma leen présenté nii moom la gisngeen ngeen nii mu defale leen clavier LED emoji police wala bu fekkee gisoo leen ko aussi tamit man ngeen bind li nga xamante ne mooy euh, LED key boor gis nga boo leen defee automatiquement résultat bi ngeen gis ne c'est la même chose application bi la moom laa leen présenté ngeen xàmmee ko bu baax a baax moo nekk ni moom lañ bind 2022 gis nga boo xoolee ñu ci def clavier LED emoji police gis nga clavier euh, application bi moom la ñuy télécharger gis ngeen ko nii moom ngeen ni télécharger après avoir téléchargé j'espère que ñu xool gis ngeen application bu fiable la gis ngeen am na note plus de 4,5, 5 gis ngeen ko ni belle application utilisée personnalisée gis nga etc aussi tamit am plus de 10 millions de téléchargements sur plus de 10 millions de téléchargements etc. cela cela nous dit que c'est une application fiable euh, c'est une application fiable désolé désolé désolé après cliquer sur YouTube désolé mais c'est une application fiable là oui après avoir téléchargé vous faites ouvrir euh, vous faites ouvrir oui après avoir téléchargé vous faites ouvrir boo leen defee ouvrir ngeen Pachan gis nga moo nekk nii ledd kay boire boo leen bindeeloo rek di ngeen ko gis sur Google Play Store léegi bu la indilee fii da ngeen di ñëw yéen ngeen sélectionné li nga xamante ni mooy désolé désolé désolé da ngeen bës si passe désolé ñu dem gis nga da ngeen ñëw ngeen sélectionné leen ko bëgg a wan moo tax mooy bës sama ñaar loxo day dem mais da ngeen sélectionné deuxième bi fii ngeen di sélectionné gis ngeen sélectionné fii ngeen di sélectionné boo leen ko defee ngeen patienté bu ko defee mu saatu léegi nga léegi si kaw bu ko defee nga dem sa yoon gis nga léegi affaire li nga xamante ne mooy application bi ñëw na léegi dañuy patiente gis nga yëpp ay thèmes yoo xam dañu koy présenté mais ñun application bi ci boppam la ñu bëgg a use léegi dañuy patienté bu ko defee la la ñuy def dañuy bës fii nga xam mooy plus bi ci plus bi. dañuy plus bi ñu patienté. gis nga déjà proposé nañu lii yëpp ay thème ay thèmes yoo xamante ni moom moo ñu ko proposé li nga xamante ni mooy application bi déjà thèmes yi mën ngeen fi jël yu leen neex ay thèmes yu rafet rafet la gis ngeen ko nii léegi dañ leen njëkk wan li nga xamante ni mooy 1 bi dañuy njëkk a use 1 bi ci kanam ni gis ngeen boo leen ñëwee bii nii boo leen ko bëggee jël li nga xam mooy 1 bi nii boo leen ko bëggee jël li ngeen ciy bës boo leen ci bësee nii gis nga xam nga sélectionné naa moo nekk ni léegi da ngay def fii enregistré nga xool boo defee enregistré danaa la nga bind ba xam clavier bi neex nga gis nga clavier ni mel ñu ngi exemple ñu bindee bonjour gis nga gis nga ni muy ngeen use ngeen clavier bi gis mel bu fekkee bi neex leen mën ngeen puusaat gis nga bii ñëw na nga defaat enregistré xam nga gis nga bii ni muy mel xam nga Euh, moo bind exemple bonjour bu len neexee rek xam nga da ngeen di def fi enregistrer bind fi euh, tuddee ko sa tur nga def enregistrer légui moy nekk sa clavier principal gis nga légui mais dama leen won rek motax quoi use mako légui gis nga bonjour gis nga clavier mi také tàkkee et cetera bu ñu ci 3e bi gis nga troisième moo nekk bi ñu défé enregistrer gis nga bi tamit nii la mel gis nga ni lay také quoi bonjour et cetera bu ñëwé ci 4e bi gis nga c'est la même chose gis nga bu ñu defee nii bonjour gis nga yi tamit gis nga ni mel bu ñëwee ci cinquième bi gis nga bu ñu defee c'est la même chose gis nga bu ñu defee bonjour gis nga ni muy gis nga ni muy tàkkee gis nga bonjour gis nga comment vous allez gis nga gis nga ni muy tàkkee quoi gis nga j'espère que gis ngeen ko quoi c'est comme ça euh, bu ñu ñëwaatee ci sixième bi gis nga bu ñu defee enregistré gis nga bi tamit gis nga ni muy tàkkee c'est la même chose gis nga bu ñëwee ci septième bi gis nga bu ñu defee ni gis ngeen. gis ngeen bii tamit ni muy tàkkee quoi huitième bi gis nga bu leen ci neex da ngeen di bind turam bi ngeen enregistré ko dama leen wan moo tax quoi may ñëw ci gis nga bii nii huitième bi gis ngeen bu leen neexee da ngeen ciy bind tur bi ngeen ko bëgg a turee ngeen def enregistré mu nekk seen clavier gis nga neuvième bi gis nga neuvième moo nekk nii bonjour gis nga neuvième bi euh, bu leen neexee bind ci seen tur ngeen def enregistré gis nga euh, dixième bi gis nga dixième bi gis nga bu leen bu leen neexee ngeen bind seen tour ngeen en enregistré euh, onzième bi c'est la même chose gis nga ñi nga onzième bi ay écrit ay kii nice lay tàkk ah. boo leen ko utiliser da leen am ngeen bind xam nga et cetera waaw léegi douzième bi gis ngeen et cetera gis ngeen ni mel ñu ngeen douzième bi te aussi tamit clavier dafa amaale emoji waaw da ngeen def enregistré gis nga gis nga. emoji mo nek nekk quoi dama len ko won gis nga emoji ño nek ni dang ci emoji emoji clavier am emoji bu ah, ah, c'est bon bi moy quatorzième di dernière bi bo défé enregistrer gis nga gis nga gis nga bonjour etc gis ko bu leen neexee da ngeen bind tur ko defee ngeen enregistré ko quoi waaw bu fekkee da ngeen bëgg a defaree seen propre seen bos fi ngeen di ñëw gis ngeen créer seen couleur gis nga effet yi ngeen créer seen propre effet appui vision gis nga bu fekkee na ngeen bëgg a créer seen bos et cetera mais yéen rek nice na moo tax moo leen yëpp ay police la gis nga fii son bi la et cetera gis ngeen effet sonore bi ngeen bëgg bi ngeen bëgg kii xam nga yooyu yëpp mu ngi fi am ah waaw aussi tamit yii nii damay génn utiliser moom yii gars yi ñoo leen ko proposé bu leen neex tamit ma ngeen ko fi télécharger gis ngeen ay ay ay ay ay ay ay kii yu bëree bëri yoo xam gars yi ñoo leen koy proposé léegi bu ñu si ak gis nga yii boo ko doon use gis nga Beaucoup de news, use euh, ngay def obtenir le thème rek boo defee obtenir le thème Donc nga koy am facilement ay thème yu bare bare yo xam gars ñom ñoom ñoo leen koy proposer gis nga euh, bo leen bëgg rek yu bare bare yo xam ñoo leen koy proposer bo leen bëgg tam ngeen ko fi télécharger ah xam ay LED la andal. bo ñëwé ci bo appuyé ci kii bi gis nga da ngay gis LED di etc j'espère que comprendre ngeen dal. bu leen bëgg use mën ngeen ko télécharger ay thème yu rafet la bu ko defé ngeen koy utiliser di bind da leen may envie etc j'espère que astuce bi neex na leen wax abonné aussi te activer la cloche pour ne pas manquer à mes prochaines vidéos